daan Landing Niambé te dëgg waaye yow da ngaa jeexal waa Sénégal mbër yii yëpp ma la. wax na Ahmed Deme wax na Ahmed Deme. Ahmed eh, su ma juumul Ahmed dem nga mujjee bëre. Ahmed Deme mujjee bëre ah. waaw. mais yow yow da nga jeexal ñëpp lan la la tax mu siiwoo goo siiw bi war lan la la moo xew. non xam nga maanaam ñun dëkkuñu Dakar. dëkkoo Dakar rek loolu moo tax. Dakar laa dëkk waaw. tey day gis làmb koo xam te dañoo cinq combats leen cinq victoire. Uh-huh. <laughs> yow ñi nga war a bëreel mu jéggi leen fi dem ne dem bëri jéeg. yow yaa ngi si ay dix-huit victoire vingt. waaw te war a bëri ñooñu yow. Uh-huh. tey mën naa ay combats yoo xam ne yëpp mën naa ko. ma may bëri benn booy. waaw a bëri moom. Zarko men boobu bi ma daan jëlee. waxal bi ma daan jëlee wax nan ma ko. Uh-huh. mu topp plateau ni xaw ma. te li bi doon mënul doon sama rakk. ma jàng ma jàngal ko bëre. waaw ba xëy jox ko ser ko moom xamul moom mu xam li bi doon xamuma. non xam na la moom. na la comprendre nga. waa lay wàññi rek. man damay nangu. parce que man nekkuma jotaay yu bëri yi. man li ma kii maa ngi ma doon xaw a yox bu is dama ko faral ci làmb. barke Seydina Mohamed. Mhm. xam nga lu tax. Mhm. bu jëf teewee wax ji bëri amatul sens. Mhm. jëf dafa ëpp solo wax mais làmb léegi dafa bëri ay mbëru média. ak ay mbëru open press. leer te bi. loolu sens bi. tey nga ñëw open press wax a wax ba ne saay média toj média wax ba ne saay te ba ëbbi nga mel ni du woon yow. amul mm-hmm. sens. Mm-hmm. lamb bu bu naxante suñu biir. Zarko est-ce que ak cëfër dafa bëgg bari cëfër cëfër de. comprendre xam naa loolu moo tax. man moom nekk ma fi di bàyyi kenn cëfër cëfër dama wax lu leer du ma du ma bër boo xam ne da nga ñëw di ma manipuler di ma diriger mbaa nga def lu la neex képp ku ci xaar loolu bu jël janteere mm-hmm. man damay ñëw dee mu ñu dee bu ko yàlla may na xam lu yàlla mais lu yomb du fa am man noonu lay bëree muy wax ci géew bi ki séance bi man ba nekk sama séance bi wax du bari en tout cas ne per uh-huh. li nu wax nañ ko def xanaa si dar si forza ko jëlee loolu kii moom ma yar uh-huh. kii deret lépp bi mu yar man deret lépp laa yor laa uh-huh. kii da danaa nekk néeg maa ngi daan maa ngi daan fuggi entraînement barke alxuraan te boobu duma duma dara boobu mbapat laay def fu ma dégg nag dem jëli mais kii moom ma njëkk ni ma catégorie bi ngay bëre waaw bàyyi ko del bëri ji poids lourd ndax sa dayoo tuuti na mais sa bëri ëpp na loolu kii moom ma ko njëkk a wax boobu ñu ngi contact contact nan contact nan ba suñu benn gaar bu tolloo nag moom bu naan sele yàlla ko yàlla yërëm mi ngi nii danoo contact tey bi mu xëyee laaj ko yeewuwul billaahi dafa dog mi ngi nii xaritam kër la woon mhm. ñu naan guddeeg bëccëg mhm. man moom ak mhm. doomu jëndeer mais loolu yéeme na mi ngi nii ndax entraînement yi tamit yu ñu daan teg moom mi boobu amagul seenum su mujjoon fii danaan bàyyi ba parce que heure di matin woor weeru koor ñu dugg fa ba yenn saa yi ay quatre heures matin faussaat da daan téye ci géej. mais loolu ngeen ko dundee waa jooju. métti woon na trop. Uh-huh. métti na trop parce que suñu mbile woon contact moo koy soññee. waaw te amaana sax booba fekk na booba sax bëri ni ko kii mel mënu ko. Mm-hmm. mais mooy mooy soññee contact. loolu noo ko dundee foofu uh-huh. foofu jóge nekk Dakar. waaw. man maa ko poussé woon man ci sama mbëre sama sama làmb bu dugg Dakar moom loolu moo ko motivé moom mu ñëw Dakar après. ndeysaan. di liggéey fii ba ñëw fii moom écurie écurie Gueule Tapée bi. waaw écurie Gueule Tapée bi moom moo ko créé woon. ndeysaan moom moom mais def na fi bàyyi na fi dara parce que créé na écurie Gueule Tapée bi. ndeysaan ñoom ñoo ko créé ba bii kayit yi génnee. Hmm. moment yooyu nag ci la ci yàlla suñu borom jëlee. Hmm, ndeysaan si entraînement bu métti. déedéet sax. mais saa wu ne donc ci da lay wax ni ñu doon entraînement entraînement yu métti. métti waaw moom bu muy bu muy gaañu. Mhm. boo fekkee ne sax man après man maa ngi woon Ndar. maa ngi woon Ndar waaw def fa un que moom boobu dafa xawoon tawat dafa entraînement dafa dog la woon def na. dog mhm. euh, li nga am lii yëpp palmarès en bi amul benn mbër sa Sénégal bi bu mooy li ma sax dama ne la. waaw làmb léegi da gis koo xamante nii. Mhm. day bëre cinq combats. waaw journaliste yi taayu ko dem jox ko Jackson mi mu war mu bëreel. te mm. Jackson la def ci làmb kooku dugg sa xaaj bi. Mm. te fekk Jackson mii ak jamteer bi ñoo war a bëre mooy làmb jaar yoon ndax ñoom ñaar seen i permanence méngoo na comprendre nga. waaw mais tey nga bàyyi fa Jackson. Mm-hmm. jamteer war a bëre Jackson. Mm-hmm. nga tëb jamteer fii dem jëli bi kële mu bëri ci Jackson làmb noonu doxee léegi. dafa feeñ ci Zarko ñi muy jël wala la. fe feeñee ci Zarko. Mm-hmm. ñi Bébé Diène man ñaar combat laa bëri bàyyi mu nekk fii te bëriwul. bëri na mu génn jox ko gàpp dër. waaw. mu ñëpp si ànd ni mel. Mhm. après ñu jox ko bàyyi mu yem. après ñu joxaat ko mu dem bëri mu dem bëri mhm. ba mu neex mu ñëw dem jox mbéy gu gi mbéy ma def si làmb mbéy gu gi mbéy gu gi dafa xaaj bi. dëgg la wax dëgg comprendre ba yee mbéy gu ñu ne déeta waay. Mhm. mu joxaat sens. bàyyi ma ñoon bàyyi ma ñoon. combat mu génn kay sax d'accord naa. amul problème da jënd champion daanam la mais mu jóge fa fee ñëw dem jël. ay ah, ay aarafaas ay aarafaas ak ay ñooñu li may islam dafa xool ma leen sax li ma wax pamare bokkuñu ma ak hmm. ma yoon. kon ñu gars yi dañu lay teggi. loolu yéen a yéen waa lamb yéen a ma gën a xam mais nag man maa ngi sa sàbbi Sëriñ Tuubaa lu ñu lu ñu damay xam ne loolu yàlla dogal. Lamine ñii du tax ñu koy booy booy balaa ma ñuy teggi bi booy yooyu nga wax tudd nga aarafaas. Hmm. tudd bébé Diène d'accord ci combat ñaaba ndaw ak ak ak Amanex. d'accord ma ci benn combat warul man déglu ma lan ah. man sa waruma mais ni laa muy doxee laay wax man du ma dingat benn mbër ndax bariwul sax lu nit di dégg ma jëm tee di wax ci benn mbër comprendre nga mais làmb ni muy doxee nii bu dee ni lay doxe laa dina bari ñu bàyyi làmb xam nga keroog kii toog na fi ne day bàyyi làmb man ñi peut-être boobu laa ñëwee. lan comprendre billaahi wallaahi tallaahi. bàyyi làmb parce parce que mool laa lébu laa damaa yor ay gaal yor ay machine comprendre nga su ma bëriwul damay bàyyi làmb damaa bàyyi samay rakk yi ñuy dem géej ma bàyyi ma bàyyi géej di bëree comprendre nga su ma dee ba bëreetuma damay bàyyi làmb delluwaat ci géej gi comprendre parce que tey bu ñu bari bu la yaakaaree nga bàyyi lépp ngir ñoom nga yeesaa da guddi nit fëgg la wax la wax ngir sa a yaakaar bu mu tas te làmb moo na ko mën a may ndax reyante nañ reyante nañ lépp ngir làmb comprendre xañ suñu borom suñ lépp suñ suñ maam suñu bopp lépp ngir làmb kon bu ñu ñëwee ba toll ci bunt bi nag ñu war a bunt bi téye bu kéy bunt bi da wañu waat pare nga pour pour bàyyi làmb. billaahi wallaahi su gars yi nu mu tëb bëri bëri man ma bàyyi làmb déggoo wax bi de man du ma li may wax moo nekk ci man. bul bàyyi ëpp naa def. xam mhm. la moo tax. ñun nanu boole ci lug bi fi ñu bokk ñu xam ne ñun làmb dañ cee bokk ñu bëree. comme naan ndax du ñu ay mbëri koñ. et eh, Bakane li ñuy commentaire lañ ñu wax quel lañ ñu wax quel adversaire. kii bu ñu jógee pour jam ci ñuy commentaire. bu ñu jógee. waaw day jóg. ma am ay rakk ay Toné ay mhm. am ay rakk yoo xam ne ay libidoor yëpp toppoon sama ginnaaw ma boot tund jëndeer di reyante booy ba tey tamit ay firi samp yoo ne sama ginnaaw comprendre nga man du ma mbëru gox du du du ma mbëru tuut kii koñ mbëru tund laa mbëru ma ñëw làmb mukk ñu ne dem teel mobilisation kon dafa am lu la lu la naqari si làmb bi yàgg ma nax ma du ma di ko wax dama ay wax ci làmb ci média yi nii parce que sama si loolu la loolu la ni loolu la ni métadlu mais tey mënoo di tarare di wax te doo bëree di yàq sa énergie te doo bëree mënul nekk ñun xam nañ suñu bokk xam nañ ni def ci làmb preuve yaa ngi fii nan bë nanu boole boole suñuy naataango ñu bëri ñuy teggi teggi ay Moussa Ndoye di teggeeg ay ñoom kii nan nan bàyyi loolu te jël ñu war a jël combat yi métti tar mais jël bëgg combat yi yem tant que wuy fi ñi jël ñee loolu mënul làmb commentaire yaa ngi noonu Iba Kane mhm. Dof Jackson nee na jamteeri sox Mbacke Fall nee na Serigne Ndiaye numéro 2 jamteeri Balla Ndoye nee na Albouri Mor Gueye nee na moom ak soq mhm. ah. Baba Sow nee na moom ak Mame Balla top 5 Daabo nee na jamteeri Jackson ah Sall nee na jam soq Albouri yooyu ñoo fi ñëwaat ah. waaw dinañ ñëwaat si ay adversaire am balaa après bu ñuy dugal ñoom ñëpp ñu boole leen seen adversaire mhm. ñu dem si loolu mais toujours dañuy des si jamteer yi mais lii xam nga ne retardal na sa carrière lu bëree bëri. li Forza wax li Forza wax laa ñuy waxaat. Uh-huh. tey ji bu yàlla nangu woon. Uh-huh. Forza tey danaa fi roi des arènes parce que macha allah am na bi. waaw te man gisuma ko dàq bëri. ndax dama koo xam dama tarbiwu ci kippaaram comprendre mhm. mais yàlla nag am na fa ne yàlla mooy ñëw da ngay nangul yàlla dogal dëgg la man làmb su ma si gañewul mhm. sax sant naa yàlla ndax am na ay rak ay rak yu si yu si gañe dara mhm. ndax li mu doon bu nga xamee maa maa maa tax waaw tooni si ñoo ñeneen ak ñeneen sant naa yàlla bu baax a baax te boo yooyu ñu ngi ñëw lépp lu am ci làmb rek yàlla na gën a yokk mais nag man li ma xam ba xam ko mooy su ma bëriwul damay bàyyi làmb surtout ma benn bër naan nangam nangam nag mais su ma bëriwul. Mhm. damay bàyyi làmb. ëpp naa def bul bàyyi. billaahi wallaahi wa taalaahi. ba nga waat ko nii. parce que dama tey dama dama dama sacrifice sama bopp ba am ay blessures yu métti ndax làmb am combat bañ say noonu yàlla nga forcer lépp ngeen lax làmb dak ay coono far dem dem Maroc fi faral xaalis bi tàll ngir ngir ngir làmb. Mhm. te amoo kenn ku la koy fay. te Maroc boobu ay millions nga si def sa tànk bi. waaye ki am na ki am na xam na tànk la ci nekk ñaan ñaan ma yàlla mu ñaan ma yàlla mu daal benn mbër. mais opération nga def wala lan. non man opération bëgg na ko def mais mayenu xaalis moom moo tax def opération li tax sama lam métti. Hmm. ban genre blessure la ligament ma croisé wala la. xam nga doon na ci làmb. te bëggoo nga yàlla baax na daal. balaa mbëri di fa jaar yàlla baax. Hmm, lay <laughs> wax lay wax jàmm borom palmarès bi. dafa war am combat ah, comme ni ko waxee dafa war am combat parce que tamit. wax dëgg yàlla day bëre day def fulla hmm. et puis day mobiliser li promoteurs yi bëgg bu jógee Kayaar yëpp hmm. waaw dañuy dañ dañ koy topp kon adversaire nañ ko jël nañ ko nag bëggul yomb parce que adversaire yoo ah, daa saf sàpp de waaw waaw mbër bu saf sàpp la